ربي بما يزرع الأذهان قد فجاء بجاه أبدل من لله قد لجاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk yi dellusi si waat ci pàkk bu bi bii ku jataay bii xam ne jataayum ndigal ndigal li bàyyi ko ci xalif général de Mouride cheikh Mouhamadul Muntaxa yàlla na fi gën a yàgg te gën a wér yàlla kàttanal ko ba mu àggale yéenam ci lislaam ak ñooñ lislaam te àggale yéene taalibe yi ci moom. ndigal li jaar ci sëriñ Abdoulahi Mbacke Mouhamadul Mahmoud mi nga xam ne mooy xalifaab sëriñ Mor Soxna Jaara ndigal loolu nag ñëw fii ci kër sëriñ Abdou Latif sëriñ cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou mi nga xam ne at mu jot dana ànd ak njaboot gi ak bokki taalibe yi. fàttaliku bés bu màgg boobu nga xam ne baaxoo nañ ko def ci juróom-ñetti fani kori mu tombeeg le 9 mai incha allahu taala fii ci saam goog sëriñ Abdou Latif moom sëriñ Mor Soxna Jaara ndigal li nag xam ngeen ne sëñ Cheikh saa yu ñëwee day jël lépp teg ko ci rakam sëriñ Jili Mbàkke mii ñu gën ko min ci sëriñ Jili Lappe moom mooy taxawu màggal gi saa yu jotee ndigal dana woo bokki taalibe yi mu ko seqal yëpp ak dongo yi ñu waajal bés bi moo waral jotaay bii tey nu ànd ak yéen xamal leen waajtaayu bés bi ak programme bi incha allahu taala danañu jox kàddu gi Serigne Bara Jaxate mooy wax ci turu Serigne bi ci woote màggal gi woo mboolem daare alxuraan yi nga xam ne mooy li gën a yitteel Serigne bi ci bés bi jàng alxuraan ak xasaayid bu noppee nag ñu jox kaddu gi ki nga xam ne moo di Serigne Babacar Gajaga mooy wax ci turu dongoy tërbiye yi bu noppee ñu jox kàddu gi Serigne Mokhtar Sylla mooy wax ci turu daayira bi ak fédération bi bu noppee ñu jox kaddu gi Serigne Moustahine Mbacké Serigne Moustahine mooy wax ci turu sët yi xam ngeen ne ñu yi ñu ko baaxoo defee at mu jot màggal gi dañ ciy amal conférence bu am solo boo xam ne dañ ci woo seen bokk daayira sët yëpp incha allahu taala bu noppee nag ñu jëbbal kaddu gi Serigne Mamor Mbacké moom sëñ Cheikh Lappé mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne Jili kon nu ànd déglu Serigne Bara jaxate mi wax ci dongo yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare tey jiital ci nuyoo bi sun kilifa gi ci sun ginnaaw muy sëriñ Jili ñu gën koo xam ci sëriñ Abdou Khadir Mbacke. di ñëwaat ci bis bii rek ni ko suñu Omar Kan Balla ay sa waxee di soññee njàngum alxuraan mi di ko soññi suma mbokki waa daara yëpp muy xaliye bi nga xam ne moo féete Touba Sam nga xam ne moo aju ci rabita bi di ñaar fukki daara ak juróom-ñeent ñoom ñëpp ñu ngi leen di soññi ci njàngum alxuraan mi tey jii sax lañ leen waxal ne ku mën a tàmbali nga tàmbali tey ba ca bis ba incha allah ba dugal nañ ko ci groupe yi yi nga xam ne yëpp bokk naa ci muy ci daara yi ñuy soññee alxuraan ji ak njàngum xasida mi alxuraan ji nag moonu ci gën a yitteel ndax moom la sëriñ bi daan gën a fonk ci bis bi muy am na fukki kaamil ak ñaar yoo xam ne dañ ko daan jàng ci biir kër gi loolu ba tey ñi ngi koy ñi ngi koy wéyal ñoo ngi koy soññi ñi ngi ko daan àndal muy waa kër gi muy sët yi ak ñi nga xam ne ñoo aju ci kër gi ñëpp bu bis baa ñu teel taje ca biir jàkka ja jàng ko muy fukki kaamil ak ñaar yoo xam ne sëñ du moom la daan jàngul waaye nag biir daara yi ci boppam nag kenn ku ne wax nan la loo mën a jàng nga jàng ko ba ca bis ba ñu jox nu lim bi ñu jébal ko sëriñ Jiili moom loolu daal mooy loo xam ni moom moo lu gën a yitteel te sunu soññee tam foofu lay jëm ndax daaw bi ñu ko defee tam li jàngal ci kaamil yaakaar naa euh, bari wan na bari goo xam ni lim ba àggal na fu fu yéeme ren jii nag dañoo bëgg mu ëpp ko moo tax soñ nañ suñ mbokki daara yëpp yëpp yëpp muy li tàmbalee ci saam ak madiyaana ak ak ak saamu sëñ baara xuréje ñi nga xam ne ñëpp ñoo aj ci xaliya bi daal soñu nañ leen muy ñaar fukki daara ak juróom-ñeent soñu nañ leen ci njàngum alxuraan mi ba kenn ku ne dinan dem ba ci sa daara ñu gën la koo yëgal wax la ko wax la nu ñu yiteele ñoo ngi soñu itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi daara yu jege yi ku mën a ñëw ci biir jàkka ji nga ñëw jàng si ñi nga xam ne nag danoo sori dañ leen a wax ne ñoom ñu jàng seen kër ba bés ba ku mën a teew si nga teew si indi sab lim bu ko defee lim yooyu buñ ko dajalee dinañ ko jébbal sëriñ bi sëriñ jiili sëriñ jiili jébalaat ko sëriñ seex ñu ñu waajalewaat ko ba déwén incha allah wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. di siyaar bu baax bokki jullit yi ak bokki fi ne sëriñ bi sama ginnaaw ñu ngi koy siyaar bu baax di jël ci kàddu sunuy jëwriñ bàyyi lay seet ca lappe ak bàyyi Abdou Jaxate mii ak sëriñ Dame Touré ca Italie ak bokki dong yi yëpp di leen boole di leen yëgal bis bu tedd bii nga xam ne sunu bi sax waaw kenn ku ne taxawaay boo ci waroon a taxaw rek nga gën koo yokk ñu dee ko fas yéene yëgal yéen ñëpp ñu fas am ci pas-pas nañ ko defee woon daaw rek jàng xasida yeeg alxuraan ji nañ ko gën a yokk te taxaw waaw loolu rek lañ amoon du ñuy yëgle xam naa noonu suñuy kàddu du ci bari dax jëwriñ ji waroon di wax euh, dafay nekkul waaye moom man maa ko fi teewal rek waaw noo ngi sant tey gërëm rek asalaamaaleykum mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di siyaare bu baax jataay bii nu toog nag fi kanam sëriñ Jili Mbàkkeem sëñ Abdou Latif sunu sëriñ li ko waral rek mooy cantuk sëñ Abdou Latif gi ñu daal di fii ci saam ci ndigalu sëñ Cheikh Mbàkke Abdou Latif noonu ko daa defee rek daa agsi waat fi ñu toll téeméer di ko séentu bu ñu waree ba bis bi delsi loolu moo waral yi ñu ngi siyaare mboolem jullit yi bokk taalib di leen xamal ne nag kon man li ma ciy wax rek mooy di koy yëkkati ci sunu fédération daayira bii nga xam ne mooy daayiratul muntasilina bii ci saam nga xam ne moo boo daayira yëpp ñu ngi ci soññee bu baax fas yéene àndandoo ci kilifa yi ko bokkal ku ci mel ni sëñ Abdou Jaxate ak suñu président daayira maanaam Moussa Gueye ak suñu secrétaire général sëñ Abdou Ba mi nga xam ne nii Serigne Ba ak ku mel daru daaru ñu rek bokki ñëpp noo fas yéene àndandoo di soññi mboolem waa saam képp ku dëkk saam àndandoog njaboot ak sëñ bi àndandoog waa daayira bi góor jigéen mag ak ndaw fas yéene taxawu bis mi nan ko daa taxawoo nan takku bu baax a baax nan daal di jóg taxaw waxtaan boole suñu bopp àndandoo def bis bi nan ko daa defee ba nga ne dina gën a kawe njortu sëriñ bi nan ko daa amee nan góorgóorlu bu baax a baax a baax ginnaaw nun ñi nag ci turu ñii jiite daayira bi di kilifa jigéen ñi nga xam ne ñoo ko seqal muy soxna ture mi nga xam moo ko jiite ak ku mel ni Fat ak ku mel ni Sali Ndiaye ak mboolem mbokk yi jigéen ñi nañu àndandoo takku nekk benn góorgóorlu taxaw waañ wi taxawu kër gi jàpp ci ni ko sëñ bi bëggee nu daa kon defe nañ góorgóorlu yàlla nañ ko yàlla defalee ni ñu ko bëggee ba sëñ bi njawtam gën a dolli ku baax ci fan ci daa aw nan dem ba def ko nam ko bëggee ci barke borom Touba noo ngi soñ ñëpp nan bokk góorgóorlu noo ngi soññi nag mboolem ñi nga xam ñoo dëkk Saam li ko wër nga xëy ni mooy borom ñu jiite mbootaay yi ak ñu jiite mbooloo ñëpp nañ xam ne ñun ñëpp ñu njabooti suñu biir dëkkar gi suñu kër daara ji suñu daara la ñëpp jógandoo àndandoo nekk ci ginnaaw Serigne Thiely Mbacké ak njabootu Cheikh Abdoulaye Mbacké gi góor ak jigéen mag a ndaw parce que ko defee niñ ko niñ ko bëggee te daanu kon defee ci barke borom Tuubaa barke Cheikh Abdoulaye Mbacké jërë ngeen jëf rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafil anbiyaai wal mursalin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam bu sell boobu ki ñu jëlee ci nuyoo bi siyaar bi nag mooy suñu kilifa gi nekk ñaan suñu borom def kanu gudd lool tànt ak wér kilifaam googu mu àndal liggéey bi ak mbooleem njabootu sëñ Abdul gi nekk ci kaw suuf moo xam njaboot moo xam njabootuk deret la wala njabootuk taalibe te njabootu sëñ Abdul bu ñu fa ñëpp dañ dugg kon sëriñ bi ñu ngi wax ci turu daayira seet sëñ Abdul nga xam ne sëñ Moustapha moo nekk ci bopp ba sëñ Moustapha mi ngi soññi mbooleem bépp membre bu bokk ci daayira bi rek moo xam jigéen la moo xam góor la ñu tàmbali wàccaayu fii ñu toll nii ndax sëriñ bi ren lu ëpp ci liggéey bi dañu ko dénk kon suñu faj la suñu laxsaay te gër te góorgóorlu foo waaye mën a nekk rek mu tàmbali wàccaayam ñi nekk ci biir dëkk bi ñu ngi leen di soññ buñ waree rek ñu ñëw waaj ba àgg ci bis ba am na bisub set setal bu ñu baaxoo def fii ci saam ñu ngi leen ci soññ bu baax a baax na ñi nga xam ne ñoo ñoo dëkkandoo yi sëriñ bi léegi tamit mi ñuy fàttali mi mi soññee ci turu suñu Soxna Astu um, Gaawaan Mbàkke ci turu mboolem jigéen ñi ak daayira yi ñu waaj bis bu baax a baax ci waaj wàccaay yu ñu ko baaxoo def kon mooy uh, seetal dëkk bi uh, uh, teral gan ñi teeru leen teeru leen suñu Moustapha nee na mi ngi fàttali membre yëpp bis ba di gën a am solo mooy njàngu alxuraan njàngu xasida mi bépp bépp daal nañ bu ñëwee nañ teeru gan ñi teral leen te fépp kër kilifa mën a nekk rek ñu nekk fa ba benn gan du fi ñëw di di di di tumuranke kon kàddu yooyu la waxoon ne dañ ko yokk ci ci tur daari bi dégg ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. bokki jullit yi bokki taalibe yi ak fu waay mën a nekk di ñu seetaan wala ngay dégg suñu kàddu. ñu ngi leen di nuyu ci turu turu sëriñ Abdul Qadir Mbacke mi nga xam ne moo nekk ci suñu ginnaaw di suñu sëriñ di suñu waajur moom mi nga xam ne moom la sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Latif jël li aju ci màggal gi lépp teg ko ci loxoom li ëpp ci liggéey bi nag mu dénkaat ñu ko nun ñi nga xam ne ñooy sëti sëriñ Abdul Latif yi ñi wax ci turam sëriñ bi mi ngi leen di nuyu mbooleem koo xam ne mi ngi ñuy seetaan ñu nekk ci réew mi ak ci nekk ci bitim réew di leen fàttali bis bi nga xam ne amuñu lu dul moom muy bisub sëriñ Abdou Latif ndax sëriñ bi nee na amuñu lu kawee sëriñ Abdou Latif ndax sëriñ Abdou mooy seen buntu ci sëriñ Touba mooy ki nga xam ne moo leen boole ci sëriñ Touba te ki nga xam ne moo la boole ci sëriñ Touba amoo lu gën a kawe kooku kon nag amuñu bis bu gën a màgg bis sambi bii nga xam ne mooy bis bi nga xam ne sëriñ Abdou Latif moo ko woo moo ko wootaloon boppam ci ak nekkam daat ci daan ci sant boromam di ci sant Serigne Touba di ci sant ay waajuram nekk ko ànd kook ñoom ñi nga xam ne ñooy ak njabootam ba mu dem bay leen fi batale leen ko waaye kenn ku ne xam ne ne lam leen batale dañ ko dañ koo yokk ndax fa fa ko Serigne Abdou Latif tàmbalee woon ku gis fi mu egsi léegi ñu xam ne ñam ko batale woon ñu mënta bàyyee mbir lañ ndax yokk nañ ko taaral nañ ko yëkkati nañ ko kon nag Serigne bi nee mi ngi ci woo mboolem mbokk yi nga xam ne ñooy mbokki deret mboolem mbokki mbakke yi ni ko sëriñ Amar kan waxe léegi li ko dale ci njabootuk seexul xadim gi ak njabootuk borom saam gi nga xam ne ñoom ñooy borom bis bi ak mboolem mbokki mbakke yëpp ak mbokki mbusoobe yi ak mboolem seex yëpp ak mboolem mbokki taalibe yi waaye rawatina mbokki mbaakol yi nga xam ne képp ko xam sëriñ Abdou Latif xam ko waa mbaakol sëriñ Abdou Mbakke nee na mi ngi koy fàttali mbokki mbaakool yi ndax bis bi seen bis la sëriñ Abdou Latif mbaakool fa la nekkoon daan fa yàkkali liggéey sëriñ Tuubaa bi ba néewaane nga dugg benn dëkk ci mbaakool ba génn ko te amul tournero woo xam ne sëriñ lañ ko tuddee boo duggee Cilmaxa ba ni ngay demee Kajoor dëkk boo dugg sëriñ Abdou am na fa tournero kon sëriñ Jiili nee na ñi ngi koy fàttali waa mbaakool gépp di ko fàttali nag dëkkandoo yi ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Touba saam sëriñ Abdou sëriñ sëriñ na bis bi seenu bis la na ngeen ubbi kër yi yaatal gan ñi te wàcc uh, waajal bis bi ci set setal setal biir kër yi setal jëmm yi ba képp koo xam ne gan la bu fi ñëwee xelam dana dal dana lam bëgg lépp dana ko am kon sëriñ bi nee na amuñu benn bis bu dul bis bi kon nañ ko fonk ñi ngi woo ñëpp bàyyiwun ci kenn di woo góor di woo jigéen di woo mag di woo ndaw di woo ñi nga xam ne it ñoom la yàlla dénk euh, dëkk bi ñu yore ko di ci woo euh, Abdou Lahad Ka mi nga xam ne mooy maire dëkk bi demoon nañ fa ànd faak ñi nga xam ne ñoo yor euh, wàllu organisation magal gi mooy sëtti Serigne Abdou Latif yi lañ ko waxoon wax dëgg yàlla daaw lam ci daan def lépp ñi ngi koy soññi ren euh, nam ko daan defee mu defe ko noonu wala mu defe ko nu ko raw ñu ngi ciy woo autorité politique yëpp it ndax bis bisub sant la waaye saam day dëkk boo xam ne ginnaaw ñoom la yàlla dénk àdduna ñu yor ko te soxla soxlawoo lépp loo xam ne luy wàccaay la ci lépp lu ab dëkk di soxla saam ak sëriñ Abdou Latif da ko soxla kon ñu ngi leen ci woo ngir bu ñu ñëwee lépp loo xam ne mën nañ ñu ko defal muy loo xam ne population dëkk bi wala ñi dëkkee dëkk bi dañ koy soxla ñu defal ñu ko ndax sëriñ bi du yàgg ba mu yàgg ba mu jàmbat leen soxlay boppam mukk lu dul soxla soxlay taalibe yi ak soxlay dëkkandoo yi rek la leen di jàmbat kon sëriñ bi nee na mi ngi ci woo ñëpp bàyyiwut kenn góor ak jigéen mag ak ndaw di wax ne bis bi amut lu moom fonk na ko lool te képp koo xam ne fonk le na ko ko dana la fonk dana la jàpp kon bi nee na ñun bàyyi xel bis bi ni ko sëñ sëñ Omar Kane waxee mu war a doon juróom-ñetti fan ci aw kori war a dëppoog le 9 ñaan yàlla suñu borom yóbbu ñu ca jàmm kilifa yi nga xam ne ñoo koy taxaw muy sëriñ Seex moom sëriñ Abdou Latif sëriñ suñu borom subhaanahu wa taala gën a yàggal ab taxawaayam gën koo dëgëral ba yéene jim am ci liggéey liggéey sëriñ bi te ñëpp teg seen bët mu àggale ko te àggale ko sagoom sëriñ jiili mii nga xam ne it moom yëndalut fanaalalut léppam mu jox ko sëñ Seex waxtu woo xam ne Serigne Cheikh soxla na mu bàyyi soxlaam yëpp ngir soxla Serigne Cheikh faju kon nun ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam di ay taalibe ni ñu ko waxee léegi nit dañoo war a laxasaa yu nekk ci ginnaawam lépp loo xam ne joxañ na ko rek ñu dagg ko kon yàlla ñu yàlla dimbale bala kilifa yi bëgg ci ñun ñu amee ko nañ nañ ko bëggee barke Cheikhul Khadim ñu àgg ci ak jàmm dugg ci ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin sëriñ bi nee na mi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokk yi bés baa ngoog dégg ngeen woote bi ak waajtaay wi nu waajal bés ba incha allahu taala juróom-ñetti fani kor yi mooy bés bi ñu waree bu dellusee le 9 mai li yi dajee ci bés bi nag te sëriñ jili li yéene ko ñëpp muy lu mat a bàyyi xel te jar jóg ndax bés la boo xam ne manees na cee fàttaliku sunu mag mënees na cee jokk ak bokk mënees na cee suuxat pas-pas ndax ki ñu koy defal moom borom pas-pas la woon boo xam ne fu lu yitte di may rek aman na ko yàlla na ko yàlla fayal muy sëriñ Abdou Latif moom sëriñ Mor Soxna Jaara loolu mooy bés bi kon nag ni ko sëñ Maam Mor waxee léegi sëriñ Jili ñëpp la tàllal loxo bàyyiwul benn buntu kër bu na ci kër sëriñ Seexul Xadim ak benn buntu kër bu ne ci kër borom saam ak mbooleem seexi sëriñ Tuubaa yi ñoom ñëpp tàllal nañ leen loxo nañ ko daan defee ànd kook ñoom ñu ngi sant ñëpp sëriñ Jili wax na ne baatum ñépp bàyyiwul kenn baatu fépp bàyyiwul fenn mi ngi ko yëgal fépp di ci woo ñëpp di ñaan ko fi teew yàlla faj sa ci barke sëriñ Touba wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu liman yafalu kullu ma arad bi xawli fa yakunu fi murad subhanahu rabban latifan bi xarib musafiran lam yara ulu xarib